ministère de la culture et de la communication état du Sénégal jox na ñaar fukki contrat à ñaar fukki animateur culturel dañ koy sante yàlla sante ko collectif des animateurs culturels sante ko état du Sénégal président Macky Sall ministère de la culture gouvernement du Sénégal front multilutte doy naa ñun ñoo wootee conférence de presse bi front multilutte doy na euh, foog naa ne xam ngeen ko ñu ngi ko taxawal mois de juin passé juin 2020 boobu ak léegi def nañ ay manifestation yu bëri lu tax gënul bëri mooy couvre-feu beeg état d'urgence beeg interdiction de rassemblement sur la voie mais organiser nañ ay manifestation yu bëri te li mandargal front multilutte doy naa mooy jéem a fédéré mbooleem collectif bu ëmb ay victimes daanaka li gën a mandargal front multilutte doy naa mooy mooy da ngay dégg ñu naan la collectif des victimes de collectif des victimes de collectif des victimes de comité euh, mais comité pour la défense des intérêts de loolu moo ëpp daanaka tur yu bëri loolu la euh, collectif des victimes de démolition de maison de Gadaye collectif des victimes de démolition de maison de Tivaouane Peulh waaw mais comité pour la défence des intérêts de de Thiénaba wala de Médina Wandifa ak ñoom seen donc dañoo toog ba jëmmi jamono gis ne Sénégal dafa bëri injustice dafa bëri nooteel injustice yu bëri yooyu nooteel yu bari yooyu salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama yu bari yooyu moo poussé sénégalais yi fu nekk ci Sénégal ngir sàmm seen àq ak yelleef ngir défendre seeni droits et libertés ñu kuréelu organiser wu en différents collectifs en différent comités foo dem ci Sénégal departement boo dem commune boo dem di nga fa fekk ñaar ñett ñeent juróom fukki collectif donc les populations les travailleurs béykat yi sàmmkat yi étudiants yi chômeurs yi ak ñoom seen villageois yi organiser wu maanaam kuréelu en comité pour la défense des intérêts de bërëb sangam comité pour la défense des intérêts de le collectif pour nangam wala nangam. front mutuelle doy naa nag ñëw ñu la ëmb. ñooñu lay jéem a dajale ndax dañoo jàpp ne li kenn mën ñaar ko dax li ñaar mën fukk ko dàq li fukk mën téeméer ko dax ndaxte ñii nga xam ne ñoo ñu teg lii ñuy dund muy injustice yi muy nooteel yi dañoo bari doole ceux-là qui sont dans le couloir à la porte lépp li ngeen di wax mu ngi fii dégg naa ñuy wax ay waxu may gu jëkk yéen mi nekk ci biti dégg nañ de li ngeen wax yëpp dégg nañ ko xaw ma kan moo war a jox guro kan comme ça ça vous donc dañuy jéem a dajale collectif yooyu ndaxte ñi ñu ko teg yenn saay ay commune la dañoo bëri doole yenn saay état la dañoo bëri doole yenn saay ministère la dañoo bëri doole yenn saa yi c'est un privé national ou un privé étranger dañoo bëri doole yenn saa yi entreprise la ay multinationale dañoo bëri doole yenn saa gouvernement la dañoo bëri doole ngir nag fexe ba tabax doole joo xam ne moo ñuy may ñun collectif sàngam ñun comité sàngam ñun union sàngam moo ñuy may ñu am ndam ci ñu ñuy noot moo tax ñu ne dañu taxawal kuréel boo xam ne képp ki nga xam ne sa bët tooy na képp ki nga xam ne am nga naxar am nga métit ci Sénégal te nga ñëw ci ñun ñu ngi lay invité nga adhéré ci Front Multilutte doy na <coughs> lii moo tax ñu taxawal mois de juin passé Front Multilutte doy na Front Multitude doy na nag ah am ay ndam ci ndam yooyu mun nañ si lim euh, les ex-contractuels de la Sénélec naam sax seen xeex jeexul mais xeex bi suñu ànd ak ñoom tax na ba jox nañ contrat à durée indéterminée CDI à fukk ak juróom ci ñoom fukk ak juróom doomu Sénégal yi nga xam ne amuñu woon xëy amuñu woon gont amuñu woon payoor ñu dàq leen injustement bu ñu xeexee ba loolu am. war nañ ko sante yàlla kon ça veut que ànd booloo dafa am solo muy benn waa PCC yi dañ doon xeex seen 14 mois d'arriéré de salaire 14 mois fukk ak ñeenti weer kenn fayu leen ñu teg leen too ñuy xeex di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ñu tëj ñu ñu gazé ñu ñu gardé ñu à vue dóor ñu liif sànniñu ñu grenade lacrymogène ci mujjantal ba ah dañ leen tànkalee lakkal leen ne leen fii amul baal nañ leen ak yàlla dingeen ngeen fay fukki weer ak ñeenti mujjantal bi fay nañ ko kon sant yàlla euh, ñenn ci dëkk yi bootu ci union du monde rural nga xam ne ñoom ñooy yuuxu Sénégal yépp dégg naa ñu Sénégal dégg nañ seen yuuxu naan Aquatech dégage Flexo dégage muy dëkk yi nga xam ne dañoo aakimoo seen forage béykat yi bañ suñu mbokk kaw gi bañ ne ñun ñu ngi doon saytu saytuwin bu mucc ayib suñu forage nanguwuñu ñu dépossédé ñu de suñuy forage di ko dénk ay privé particulièrement des privés étrangers yoo xam ne bénéfice la ñuy te bénéfice boobu ñun waa kaw ga ci lañ doon tabax jàkk ci lañ doon tabax jumaa ci lañ doon fayal suñu ay suñu ay suñu ay doom kër yi nga xam ne moom la ñuy fay bu ñu ñëwee dakaar ba Saint-Louis ci la ñuy tabaxee case wala poste santé waaw ci lañuy defaraat suñu almeer yi ak ñoom seen léegi ñoom xaalis boobu nag bi nga xam ne moo ñu doon permettre ñu def loolu ñun waa kaw ga ñoom xaalis boobu la teg bët suñu xeex seen xeex ñoom ànd ak union du monde rural ànd si ak ñun tax na ba. bëri na ay dëkk yoo xam ne nanguwaat nañ seen forage nee nañ duñu fay facture ndox du ñu fay flexo du ñu fay aquatec xeex bi nag mu ngi continuer ba léegi des na waaye dama bëgg a wane rek ne am doy naa bi ànd bi ngir ñun ñëpp wax doy naa ngir ñun ñëpp tënku ci benn wax nooteel bi doy na mu ngi am ay ay acquis mu ngi am ay ndam yoo xam ne ñu ngi koy am ci yenn bataay yi. Euh, dégg ngeen ah, ci biir doy na am na ay collectif yoo xam ne ñoom li ñuy xeex mooy recrutement clientéliste mooy di joxe xëy ak gontu boo xam ne ci yaama neex la lan ñi ñuy xeex mooy dañoo am seen diplôme ay at a ngi kenn recruté wu leen benn ñaar recrutement bu amee yaama neex la ci collectif yooyu ñu mën si ràññee euh, collectif des animateurs culturels muy les sortants euh, de l'école nationale des arts boo xam ne ñoom itam ah manifestation nañu sitting nañu xeex nañu waaw yenn saay sax ñu caalit waaw ndaxte xeex yenn saay day toll foo xam ne waaw yow Guy Marius Sagna yow Yoro yow faatu yow Abdou yow El Hadj yow Moodu waaw yow Assane yow Astou da caalit waaye ñu téye rek mais recrutement clientéliste dafa doy ñàkkum xëy bi chômage bi dafa doy ah moo tax itam ñu am mbégte annoncé leen tey ne leen euh, ci fànn boobu ministère de la culture et de la communication je crois noonu la non ministère de la culture et de la communication jox na animateur culturel yi combien 25 20 ñaar fukki contrat dëgg la nag ñun recrutement fonction publique lañuy xeex te incha allah xeex bi day continuer waaye bu dee ci xeex boobu ngir le recrutement dans la fonction publique des animateurs culturels te Sénégal li mu am ci animateur culturel dayul dafa néew ci xeex boobu bu dee ministère de la culture et de la communication état du Sénégal jox na ñaar fukki contrat à ñaar fukki animateur culturel dañ koy sante yàlla sante ko collectif des animateurs culturels sante ko état du Sénégal président Macky Sall ministère de la culture gouvernement du Sénégal sante ko doy na kon mbokk yi tey nous avons le plaisir de vous annoncer que ci ndam yi doon am am na ndam bu bees bu ñu am muy des contrat à ñaar fukki animateur culturel yoo xam ne ah en attendant xeex bi day continuer pour le recrutement dans la fonction publique en attendant loolu di am am na ñaar fukki animateur culturel yoo xam ne amuñu woon xëy amuñu woon gont amuñu woon pa amuñu woon payoor ils dans la vulnérabilité léegi ñu commencé fayeeku weeru weer kon mbokk yi c'est une excellente nouvelle ça xibaar bu am am solo la ñu bëgg a gërëm féliciter gouvernement du Sénégal ministère de la culture et de la communication